chauffeur taxi yi koo ñu jëppal laa jëm mu ne duma fa dem ndax tali yi baaxul koo ñu laa jëm mu ne duma fa dem ndax tali baaxul li ñu jëkk def mooy defaraat tali xale yu jigéen yu bari yu amoon coquette dañu classé woon seen coquette fële mbaa bu ñuy génn dañu sol corox bu ñu doxee ba sol sooy génn coquette defar nga tali yi nga roqi yeeg jumaa yeeg église bu ma déggee benn waay bu génne fu ma kenn xamul naan pavage bi état moo koy def daf may jaaxal ma ne ko dellul nga jàngiwaat yow foo jógee pavage Khalifa Sall moo koy indi Ndakaaru ci mbirum programme environnement cadre de vie liñ ci yokk bariwul dinañu xalaataat benn plan de circulation bu bees surtout ci Castor ci booru marché bi pour dem bi ak dikki bi gën yomb daañu yokk aussi désencombrement bi ak nettoiement bi organiser waat stationnement bi ba képp kuy dem boo duggee ci oto nga am place boo xam ne fa gaare ci mucc ayib daañu jëmbaataat garab yi aussi pour yi am gàncax bu bari pavage bi comme ni ma ko waxee daañ ko wéyal yaatal ko ba bi yëpp suuf dootoo ko fi gisati ci mbirum santé maa ngi ni lañ fa defoon bëri yokk nañu poste de santé bi tabax fa benn maternité tabax fa logement bi sage-femme di dëkk yokk équipement bi di leen jox garab saa su nekk suñu yéene aussi mooy jënd ambulance médicalisée ci mbirum ndaw ñi ak tàggat yaram liñ ci def bëri jardin yi nga xam ne démb jardin te tey ñu fay tàggat yaram jardin yëpp ñoo leen clôturé boo demee jardin jëppal 3. nga xam ni tey bu ñuy bu ma àggul millième bi sorowuma ndax la ma fa dugal ci ay bi bari na lool jardin boobu ñoo ko clôturé jardin jëppal deux ñoo ko clôturé jardin jëppal quatre ñoo ko jardin Bastos nous clôturé jardin terre Yogo nous ko clôturé amna ñu fa def fofu sax la bëggoon jëkk tambalé clôturé mais nous bëgguñu ko woon ci mais amna ñu Dans ni et gazonné jardin yooyu yëpp ci walu culture où xarala ak diine lañ ci def aussi bari na wax na léegi kassa gi wax na li ñu jappalé askan bi bu mangal bu gamu bu bu màggal ay nag yu mucc ayib la ñuy yóbbu ci jumaa ci mbirum éducation ak formation dafa am solo parce que ñun dañu gëm ni jàng ci la nit di moome boppam ci la askan di rawante ndax ay aji gëm lañu gis nañu yonent bi dañu ko iqra apprend kon jàng dañ ko war jox gëddaam xale yi bu ñu jàngee jàng bu mucc ayib ëllëg ñooy yaakaaru réew mi looloo tax li ñu def ci école yi

ci liggéeyu ndaw yi li ñu ci am yéene ci école yi rek mooy renforcer capacité accueil bi créer aussi dindi lépp li nga xam ne dafa wër école bi te day yàq njàngum xale yi jàppale daara yi jàppale jàngu bi aussi taxawal programme boo nga xam ne bu ñu def table banc dootuñu def marché mais dañu gis ouvrier ci commune bi ñu boole leen ñoom ñu fexe defal table ba yi nga xam ne moom lañu nekk ci école yi. ñu ñëwee di agsi dafa bare woon mbootaayu jigéen ñu ni leen da ngeen di dajaloo nekk réseau ba ñu nekkee réseau lañu commencé célébrer journée du 8 mars pour la première fois dans la commune de Dieuppeul-Derklé 8 mars bu nekk ñu jënd ay tissus jox leen ñu jënd ay tissus ñu organiser fête ci commune de Dieuppeul-Derklé ci suñu ay la amee musta mais yemuñu ci ñu defal leen formation jox leen financement bi mbas mi amee sax ci ñoom la ñuy jëndee eau javel bi ñu doon joxe jigéen ñi ñooy defar eau de javel jaay ñu ko